salaamaaleykum maa ngi leen di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay donc bëgguma woon def vidéo bi ah ñu bari nañ ma bul def vidéo bàyyil noonu mais damay def vidéo eh man kenn moomu ma ginaaru kenn nenu ma citoyen sénégalais laa di doomu sénégalais marqué sama empreinte yàlla def même bu nekkee ñaari nit ñu may seetaan maa taxawoon démb ngeen di xas Ousmane Sonko dëgg la mu ngi fi chaque jour le karma ma maa taxaw tey tagg Ousmane Sonko dëgg la. maa juum ma reconnaître sama erreur nul n'est parfait xam nga lu bon nekk ci lu bon ba pare dëkk ci maa juumoon démb maa rectifié tey sama erreur ma ànd ak moom ànd ak moom du wane li muy liggéey ànd ak moom ànd ki nga xam ne mooy président de la république du Sénégal Ousmane Sonko géeju ma géeju maa bu laal la ku nekk mën ngaa tànk sama room tànk te du jeex c'est le premier ministre du Sénégal comme ay sympathie nga bëgg dangaa bëgg patriote di ñëw ci yow di la may xaalis wala di jënd si njaay waaw bëgg naa ñu jënd sama njaay kay mais soxlawuma dara mu ñaanu ma benn patriote xaalis jëmuma laa mi sonteeg benn patriote bañ naa ko sax ba gouvernement bi sax xaw ma seen tur ñoom ñëpp El Malick Ndiaye laa ci jàpp ak su Souleye Diop bu ko soo jàpp ma kenn man may citoyen sénégalais di doomu sénégalais bokk ci réew mi am wàll ci réew mi may wax ñu may dégg waaw man kon man aw ma man daal dama war a toog rek chaque jour rek di wax Ousmane Sonko lu bon man daal waruma mën a jékki-jékki taxaw ci ruq mën a kan mbaa ma dugg ruq mën a kan xoolaat sama bopp xam nañ ca la ma nekk baaxul damaa ñëw ci yoon bu baax yàlla def na patriote di bëgg ma jox bopp di ma seetaan di ma déglu di ma bëggee may génn di wax te li may wax yëpp dëgg la dara de dara loo xamante ne dama koy fabriqué yéen da ngeen bëgg opposé wu opposition yi noonu opposé wu leen ba mu neex kenn terewu leen ko ndax opposition bu yàgg te forox te nar a ñàkk sens ak ñàkk xorom ma ne je suis pas Pastef encore une fois mais je suis patriote sympathisant fa séeréer nag lu Ousmane Sonko def lu baax ci kattanu yàlla ak mbaaxam ma wane ko lu Bassirou Diomaye Faye def lu baax ci kattanu yàlla ak mbaaxam ma wane ko lu keneen gis lu bon yaa xam man gisuma lu bon lu baax laa gis lu baax laay wax lu baax laay wane bu leen méttee ngeen taal gaz toog ci maa tey désormais lii de sama dund gi Ousmane Sonko rek laay topp lu mu def ma wane fu mu jaar ma jaar fa topp euh, damay topp ay tànkam moo Bassirou Diomaye Faye képp laay topp soxlaw ma ñu xam ma soxlaw ma seen dërëm soxlaw ma patriote bu abonné ci man wala bëgg ma xam nga lan laay def li sama conscience li ma may ma ne Ousmane Sonko mun naa ma ne ko boo bëggee bëggee bañ sax doo ko bañ ndax moo yonente yàlla Yusufa si fii ci Sénégal moo fi def lu kenn deful marqué empreinte am wane boppam ba boo ko bëgg woon a bëgg sax nga bëgg ko max yéen le patriotes max yéen ba ici repose ku mu metti ku ne kalaameel yàlla li yàlla def Ousmane Sonko moom la ko def nangu leen teel a nangu day yombali duma bu leen ma sona